xam mooy lii lépp son bi neex na wax ji neex na di wax ji jekk na loo ci jublu. fàttale ko coon sekk rek ak mën a wéy dafa mën. sëñ bi mosoo fàttale ko coon sekk ci loo ci jublu ay nante lay topp de ay nante nante. mais dégg nga son bi bëggoon naan fas yéene la delloo njukkal te di la invite ci sama ngoonal. ci sama ngoonal. dafa bàyyi musique bi ñëw mën ne ko xam naa ne doo kuy xàccoo. ginaar cuuj ak i nenam wax jooju yow noo ko jànge noo ko mën a tekkee doona mën a wéy rek coon dafa mën a wéy moom moom nduur moom ndaw si dégg naa dafa gaaw ci plainte abi waaye du la mën a plainte yaa ngi Espagne man maa ngi Amérique moom invité nañ ko wala invité wuñ ko moo jaax moo ma jaaxal nag xam nga nag kaay ma wax la dara nag bëgguma woon a dugg ci loolu. astafurlah. woon dugg ci loolu parce su ma yónnee ko ci. <laughs> mais yow yow sa njort wala li nga jot am ci information invité nañ ko wala invité wuñ ko. non man li ma xam mooy. Hmm. right now senegal dëgg dafa jafe. Hmm. te senegal soo gisee sëñ Mansour si daan wax ne ut leen xamul. ut leen mooy boo xamul mooy. mooy bayre bu la nit ñi di nangulee. Hmm. boo ko amee senegal soo juumee da nga war a juum nit nga tayaa tey. boo defee lu baax yaa ko mérito ndax yow rek yaa baax. Hmm. actuellement kenn du xam lan mooy dëgg kenn du wax dëgg. Hmm. waaye ku mën a doon ci àddina en général. Hmm. sa càmmeñ boo bokkal ndeeg baay am doom. doom jooju yow boo dee baayam nga boo dee jigéen baay bu jigéen nga baay jan ñu naan bàjjan. buñ koy ngoro yëgaluñ la. ñu indi guru indi luñ la. ñi yoo joxe warugar boole wuñ la ñii takk boolewuñ la boo fa demee xamoo sa bopp ndax lépp loo moom buñ la ko xañee doo ko xaccoo ndax nga xaccoo doo borom su boobaa nag sa ñàkk a yow it should bi a big kan leen war a balaame doom ji am bàjjen ñu koy takk te yëgalu ko ndax ku dem bay am jëkkër am nga responsabilité majeure wala yaay ji doon sëy ci kër wala baay ji wala jëkkër ji kan la wala bàjjan ji moo waroon a nekk nooy neex rek ne ignoré neen ma mais su ma cër la damay dem moom ko hmm. problème di fan comme xaw ma fal la na dama ci màndu rek te di la wax nga laaj ma lu suma affaire nekk ma su ma nekk ci loolu <laughs> non li tax ma laaj la loolu mooy benn mooy wax nga ko ci ci ci njël ci mujjantelu wax ji mooy même bu fekkente di considéré wuñ ko ba jàppe ko nooy neex xam nga Sénégal dañoo am yu ñu baaxoo ay rafetal ay lii moo gën a rafet ay àdduna amul solo te nag quoi qu'on diir dire doomam mooy marié doomam la ñuy takk. moo tax ma wax tey damaa toog ñu ne ma ne Sénégal lépp luñ mës a wax lu dul dëgg ma di ko wéddi ñu ne dama vulgaire justice mu ngi koy wane ñun lu ñu waxoon i ndaw du gaaw. dëgg la. waa Lamine Yamal bokk ci 16 la am dugal na bii demi-finale yóbbu na Espagne finale coupe du coupe du Europe. te du n'importe quel bii nga ndam maami bii. waaye te ñu ne yooni ndaw du gaaw la Yamal dafa waroon a xaar ba doon mag door waaw ah, ah. <laughs> ah, yoonu ndaw la day gaaw de bii de gaaw na moom Lamine Jamaal de gaaw na moom. donc tey rafetal ak masla mënul weesu nga am ak nit jafe-jafe ba cër bu moom jot nga jox ko ko na ko lii sa cër la su jeexee nañu continué waat problème bi delloo buum sa booy booy ko soo ma faalewut faalewu ma la bu ma yëgul yëgu mhm. lii lu xel mën a nangu la. dëgg la kartu bisou merci. waaye tamit nag xel mën naa nangu. Hmm? yëgaluñ ma duma dem waaye suma càmmeñ laa ko seexal dinaa ko féliciter yëkkati suma ndawtal jox ko est-ce que abi defut loolu ak buuba xaw ma su ma yoon nekku ci. mën na parce que su doonee bàjjeni Zeyna buuba nduur a tax. Hmm. waaw bu yëkkati téléphone woo buuba yëkkati teranga na ko comme sa taaw bu jigéen la ñuy takk lii maa la ko ndawtal mu yem ci ñoom ñaar en tant que hmm. def na li ko defu ko. def na ko bu dee buuba dong ko woo wax ko. waaw mu yem ca. waaw mais doom ji doomam la dañoo xam lu rafet. waa léegi bu fekkee doom ji dafa tongo bàjjen ji nag. Ah. néew ma question la waxuma. waaw ah. bu dee yow da ne bu dee. bu dee daf ko tongoo. ah bu dee daf koo tongoo. ak lu bàjjen ji war foofu gàtt sa gàtt sa la. merci mais loolu deful ma reetaan de. loolu de loolu de indi sañ sa noir blanc bu baax. yoonam nekk man daal man man daal bëgg naa abi ba pare daal yàlla def na def na ko sama xol man. waaw ko bu ëllëgee buy baatara na ree ñu xam ne li muy def saf na ko neex na ko. pourtant moom nag duy forcer dara def peut-être bëggutoon ree amul envie rek. <laughs> waaw moom nag moom fulla daa bari de. <laughs> peut-être bëggul ree quoi. xam nga doo ko. waaye nag bàjjan ku ko xool xool gone gi xam ni ah deret for na de. et surtout surtout ah ah. tamit nag. Ah, surtout surtout. mbës namoon naa la. moom moom dafa bëri ful dafa bëri fayda moom moom suñu bàjjan. Mhm. Hmm, tata abi ñun moom lañu toog. Mhm. mais nag xam naa ñu bëri dinañ ni li gënoon a rafet mooy ma xam ne doom ji doomam la moo buuba ñoo bokk ndey ak baay. famille bi ñëpp a ngi fa woon moom doo nga fa manqué waroon naa mën a dem. waa Sénégal noonu leen mel. Mhm. ñoom seen yoon ci dëgg. la leen neex ka leen neex ak li rafet seen xel looloy dëgg. ok léegi rafetal boobu noonu mu la ko limale rafetal boobu lu mu maanaam baat bi ñu ko tuddee pour rafetal nu mu wute ak naafeq. rafetali sénégalais naafeq la. rafetal ci sunna loolu xaqiqa la. xam nga tey Sénégal. Euh, seen niveau naafeq yegg na ci jigéen ju aaya boppam ñu tëral ko xaddis bi ne yonantu mu ne malayka yi yàlla rëbb bind ci meer ñoo lay rëbb hmm. loolu la wax hmm. waaye duñ lijjanti fan nga jaar jigéen ji ba mu jéppi la ba nga tëdd ak moom ci kaw lal bugg koo tëddee mu bañ en tant que sa jabar xaddis boobu dañ koy tëb balaa rafetal ak abi hmm. ndax Vivi Bouba Zeyna def neen li leen war parce que takk suñu abi takk suñu doomam. déedéet. te du kër abi waaye ci deretam la ndax jox neen ko cër bi moom yëgal neen ko te moom du ko ñuy yëgal ku ñuy tàggu la sa doom dee am na ku ko bëgg nii la tudd ne la la tudd mu am ci kàddu ci doomam. Hmm. dafa am ñoo war a yëgal am ñoo war a tàggu. lii la société sénégalaise di demee mais nag dañuy tegg lépp. waroon na def lu rafet seen yoon nekkul ci lii su boobaa loolu naa fekk la fa huwa shaytaanun axraf mbir boo ko xamut da nga koy analyser boo ci xamee wax ca dëgg comme man ak yow nag yaa nga Espagne maa nga Italie am neen xel dañuy analyser rek waaw dañuy analyser rek ak ak laaj yi ñu am suñ xol ñu koy laaj ci kaw c'est pas lii am wala lalee am ndax fekkewu dëgg la mais nag am naa xel mhm. te lay dëgg moom ku ko dégg xam ko mhm. te buñ ci xamoon dara dinañ ko nettali waaw yow xam nga maay si sëriñ tey. Mm-hmm. mais yow fan fan yaa ngi ah? yi yow yaa may suivre fan yi sama sama nettali jaaxalu la yow dépassé wu la. noonu la noonu la. ba pare xam nga lu neex ci nettali fu ma nettale wala fu ma romb ñu ne woon sëñ bi yàq na la. ma ne leen ah kon sëñ bi nii la mel fe seetloo ma ko woon bàyyi ma ci xel sax. maanaam internet yaa ngay wax ne nettalikat nga. non damaa xër damaa xër bàyyiwuma xel ci dangay ngay nettali bàyyiwuma ci xel sax. gaa yi man bind mais waxoon naa la ne nettali lu baax la. Hmm. xam nga boo gisee même abuse li ñuy wax moleste ak rape ci anglais maanaam yakkataan xale. Hmm. ak siif xale. yakkataan mooy nga koy foyee talaaloo hmm. siif mooy nga dugal sa pëy bi ci pëyam. léegi nag ñaar yooyu yëpp boo gisee mu bëri senegal mooy neen ko suturaal ak xale du nettali ma ne leen du dëgg xale dafa war a nettali waaye warta fen dëgg la ndax bu la nettali lu xew doo ko xam ba koy orienté te diine lislaam bi ñu nekk nettali nguura la ndam la titre la ab Buxaari lan moo tax ñu xam ko nettali muslim nettali ibnu hanbal nettali dina nettali leneen. Hmm. yonent bi moo njëkk nettali li xew diggante mag yàlla yàlla nettali. yàlla da ko nettali bind bawal ñu fi. siraajan muniiran moom def nettali rek lañ ko sant kenn binduloo ko. nettali ah, wax nga dëgg temps bi di jàll yi di bind di baf di. di nettali nag bay ci bind xissa dañ koy jàng xissa yonoon ñu nettali la <laughs> maanaam yonantu nam doon takkee jabar nam doon dundee nam doon naanee nam doon duggee ci wana yëpp dañ ko nettali. Hmm. ñun nous sommes tous des nettalileurs. dëgg la dëgg la. donc sa sëriñ nettalikat la. nettali baax na yokk ak sos moo baaxul. yokk sax may neen la ko. nooy yokke. wansub ilaa zaatihi maa chita min sharafin. wansub ilaa qadrihi maa chita min alami. wéy la di. bu siir yi mu ne. Hmm. xoolal ci darajaay yonantu sallallahu alayhi loo wax lu mooy mooy yàlla rek baax ak ci màggaayam waxal lu la neex waaye bul ne moo bind nit ñi de wala moom la ñuy jàmm yokk neex na gars yi yenn xisay ci yonent yokk di yow da lay leer lii dañ koy yokk te léegi-léegi ñu yokkal seen tubaab lu neex. wax sama xalaat. voilà léegi-léegi ñu yokkal seen tubaab surtout weeru koor. Eh, boobu moo ñettali activé. carte générale. <coughs> bu kër gi ñëwee. non dangay gis kuy nettali sëñ Babacar ci loo xam ne yow da ngay rus maanaam ñun diine nettali la ñu am donc yow ak sa sëriñ nettalikat bi ku la ko wax na ko waaw suma sëriñ nettalikat la waaye yow sa la léegi-léegi gars yi nettali lu neex yow da xam ne lii dafa neex xoolal te Sénégal nag bu ñu la nettalee lu neex xoolal may ñu la duraan nga nga questionné question critique lu mu a nekkee sëñ bi yow da nga ala ko quoi da nga torox quoi sëñ bi amul morom Mm. ma képp la seen nettali ay fen yoo xam ne yow da ngeen xam ne fen la. Mm. <laughs> wallaay wallaay. non carte ñu moom li fay xew par at moom gars yi war nañ koo seetaan. même ma loolu même ma loolu ma wax la nettali nu mu nekkee fen. Mm. benn waaye carte générale mu ne. dafa am ko demoon ci sëñ Babacar si di ko ñaanloo. Mm-hmm. dafa am gént gént gi ko mu ne mu dem ñaanal suñ Babacar ñaanal ko <laughs> mu mu dugg ci mu dugg ci terrain bi wàcc ci gaar bi for calpe bu def cent vingt cinq mille mu ne mu dem jënd xar jënd xar ngénte ba ngénte gi jeex xoolal Pape Ana ak xam nga dara safu ko daan teegi naan <laughs> dëgg dara ma rek gaay amin kaza kuridi ranin bisi salami ماذا اهتدى من جرى من مقلة بدمي harmonie sa ko quoi mu neex waaw mu neex ma ne loolu fen du ma ko rafetal fen Mm-hmm. ndax Serigne Babacar Sy mm-hmm. radiallahu taala anhu musta tooñ boromam nii moromam mm-hmm. musta wax xawlan wa fi'lan wala mu jëf lu génn lu xotti xorma sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du ko def léegi sunna dafa jàngale ne ku forloo moomut laajte ko ba ñu yëg ko nga denc ko at boo xamut kan la saraxel genn wàll ngir borom lekk genn wàll kii for léegi jaay léegi sàcc la Hmm. kon yaa ngi tuumaal sëñ Babacar si ne ñaan ngim ñaanal jullit moo tax mu sàcc alali jàmm te sëñ Babacar du sàcc sàccluwul du foofooluwul kon wax jooju fen la. Hmm. ma ñëwaat ci beneen fen. ay meew la muy ban. <laughs> ñu ne Serigne Touba bureau ba ca Ndar <laughs> ñëpp a lekk yàpp xaj ba mu des moom. Hmm. loolu la gars yi wax de loolu da lañ wax. ma ne ma ne ma ne ay dóol la du dëgg. kooku rawsu zamdaani la xutbu la dafa ñëw pour sowe jaam ñi fekk dëgg réer mu di ko feeñal mu nekk ci mbooloom jullit yàlla fal ko num falewul kenn ak xàq jullit ak moroomam ni mu mel mu jël loru jaam ñépp ngir cël leen seen diggante ak seen borom mu toog ci mbooloo jullit di lekk yàpp xaj waxut leen bu leen ko lekk xaj la noppi kon complice la su boobaa def nga ne Serigne Touba ànd na ci lu lekk loo jullit ñu yàpp xaj e ça c'est pas du lor jullit bu seetaan jullit bu lor looloo tax mu nangoo dem ci gàddaay gu màgg bi ñëwee indil ñu màggal gi loolu fen ko fen ci dignité Serigne Touba la ci maqaamam la ci mayam ci yàlla mais yaa ngi koy wooteel benn sàgganteef boo xam ne warut la yow astumala ak man yow mii bu ma doon lekk yàpp xaj di nga mën a yàpp xaj la ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ay jullit toog di lekk yàpp xaj mu di leen seetaan ça c'est pas vrai du dëgg ndax bañ dëgg bañ bañ fen nangu dëgg moo ko yóbbee coono bi mu daj waaye bu hmm. nangu woon li mag mi nangu woon du jaar fi ñu ko jaarale ni kon liggéey sëriñ Tuubaa yëpp boo nettalee lii muy dëgg rek liggéeyam day daanu te liggéeyam du daanu kon wax ju du dëgg fen la hmm. ma may la beneen fen analyse bu perte pertinent hmm. waaye yow may boroom xam-xam di wax xam-xam nga daan ma analyse bu pertinent dama lay xarafal de da nga dof man man est-ce que kaay ma dee la benn affaire